Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance en nous voler. Merci de wéy like chart bu gars merci de wéy di abonné bës leen ci cloche de notification boobu gars yi ngeen abonné boo leen bëgg jot information toujours en heure jot ko en exclusivité mais également jot détails yi nga di soxla l' en contenu donc wa diaspora mbokk sénégalais également yi nekk ci ruq-ruqaat adna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nek ci lalu hôpital ci kër yi tëdd du ñeen mën sa fàtte yàlla na suñu borom fëgg seen bop ngeen rek jàmm ñi nek ci kasso yi ngeen xamné aussi erreur judiciaire gi ñu deful moom fa yobu suñu borom génn len fa delluwaat len seen i njaboot ñi do àdduna suñu borom bàyyi leen xarale àjjana plutôt daw cité yi réunions en avance ensemble dans la machine eSport TV l'actualité en continu suñu mbokk marchand ambulant yi nekk ci marché yi di ligue et tout si mbenn mi fàttewuñu leen benn yoon respect ak ça pour yi également ñëpp force de l'ordre yi nga xam ne ñi ngi tegu ci yoon bi ba yi mais également gars l'actualité moi lan mooy yali bi nga xam ne Iliman Ndiaye yaali ak li nga xam ne nag donc empreinte digitale bi nga xamné Sadio Kaiser <laughs> magnifique Mané techno ko ci kan moy donc euh, le roi euh, roi Sané sax la ko wax liñu dul roi Sané loolu lañu ñu fas yéene mais la boobu gars na ki nga donc Sergio Sergio Busquets situation nag du côté fa nga donc de euh, Bar du Barça ki nga xam mooy donc Xavi nag nee na actuellement daal kii di Busquets contrat am mi ngi dem ba juin sincèrement mënaguma wax lan lay jël comme décision Busquets mi nga xam nag moom il est partagé entre dem MLS wala tok du côté du Barça en sachant que notamment Al Nasri, koy convoité mais Kendo, ki nga uh, Unai Emery Unai Emery club ndaw yi boko joxé pression uh, équipe sixième place na donc Newcastle yu metti la ki nga Unai Emery il est exceptionnel avec les petites équipes su ma équipe ndaw dal mom la koy équipe mom Serge Gnabry match am avec l'équipe du Bayern de Munich le joueur allemand donc Serge Gnabry Bingham nga

Eh, waaw moo tax ñu naan gars yi saa yi neex sedd Sadio neex sedd la moytu leen gars yi ah. <laughs> nit ku am jàmm nit ku yaru seen ko da ngeen am fi ko xam da ngeen toog rek ngeen naan ah, sax eh, garaaw na am na gars yoo xam ne ñu ngi fi wóor na ma ne yàggoon nañ ñogootu benn booy. <laughs> mu xëy benn jour rek mu no mu kii ñu ñëw am nañu si jaar ñoo xam dañ la doon nokkoon nga xëy benn jour rek fipp rek dóor ko dóor yu métti Michael Ngor Faye booy bii gars yi moo nekkoon porté disparu booy bii moo nekkoon sa jàmbaar waroon na signé gars yi nag ci benn club mu jékki saa yi donc oncle am la ñu wax mu déserté dem ca Croatie mais booy actuellement mi ngi toj Croatie dinañ ci dellu si waat Michael Ngor Fay un excellent joueur boy bi il a du talent malheureusement xamu nu mu demee mais il a aussi ses raisons duñ ko teel a jugé dañuy bàyyi ba xam mais Ilimane éliminé illuminé éliminé waat Ndiaye euh, gaynde bëggul moom yàpp lay dundee Ilimane léegi dañ ciy teg Ilimane illuminé éliminé yaali <laughs> <laughs> Ndiaye parce que tey équipe boo xam naa ko sous pression sànq parce que dañoo waroon a dóor ñoom ñi nga xam ñoo nekk deuxième yi moo doon a yéeg ne gars ba léegi comprendre lu tax gars yi booluñ ko ci meilleur joueur foofu noonu ci championship gars yi tax booluñ ko ci li si mi ngi nii xool na action fi mu jógee Iliman Ndiaye xool leen yaali mu yaali waajal xool leen yaali bi da ngay ci tribune sax wala sa tere di kontaan gis yaali gars yi am nañu <laughs> ca am nañu ko ca dégg yaali de yaali gars yi nga xamne bu ñu la doon yali rek da ngay bëgg dem mais Iliman Ndiaye il a été exceptionnel aujourd'hui gars je rappelle que né son équipe du Sheffield United ñom ñoy deuxième amoon gars yi li nga xamne nak moy donc aujourd'hui l'avantage sur équipe bi nga xamne mo moo Middlesbrough tay il fallait que ñu door équipe bi nga moy Cardiff pour daal di assurer né ñom dañuy wëy pour maintien bi direct maintien direct et plutôt euh, monter directe la bëggoon wax ci li nga xamne moy donc euh, Premier League donc Iliman éliminé éliminé ah hein, yàlla Ndiaye gaynde bëggul buum yàpp lay dundee tey fii la donc aujourd'hui il est sur une ascension fulgurante dañuy ñaan nag mu continuer ak Sheffield United ba yéeg ca Premier League bu yéegee ca Premier League également gars il aura l'option soit mu dem soit mu mais bu doon man gars yi dama koy wax même bu les prolongation une année nga prolongé une année avec Sheffield United wala boog nga signé contrat boo xam da ngay wax option boo xam ne ne bu ñu maintenirul dem pour mu nga am temps de jeu parce que bu que Sheffield dina jouer mais bu dee beneen club pour mu adapter wu loolu problème gars aussi je vous donne rendez-vous tout à l'heure Où il wéy di abonné ñi abonné gul bës leen ci cloche de notification après dama leen joxaat benn information en exclusivité par rapport ak Sadio Sadio Kayza Magnifique Mané parce que affaire yi mi ngi daal di jéggi yooyu ja commencé déraper carrément naa leen jox yenn détails wax leen aussi lan moo ci responsabilité Sadio Kayza Magnifique Mané wooyu leen di laaj wooyu leen di abonné jaa ngeen jëf